seyt rajim sëriñ ba mooma dina xamal ñi fi newoon sëriñ bu baax bi fi newoon ñépp xam na kenn bu paate jëng def ci bayit laa la digal wutal kayit te soo nang ma ko yoon fi rasan lu yomb la Cheikh Ibra Faati lay ñi ko xamul ñoom laay xamal wut ci ay jikkoom yoo war na jëpp doom di nekk di ci moom ndax mel ni moom lu jafe la moo bari diine bari ngor bari xam-xam te mën ta ñimeeb dogal xam la ko war wuute yonni la kersaaki taggin moo ko am te mat wëllëre nel naam du xeeb du naw moo bari jom ñime te ñëw ku sell la jenn jëm la aajo ju mat laa ko di diisoog ñam war a lu la digal def na ko teelum terey lum bay ñeen fukki kilomètre yu wër la cerno toolo maa ko wër dinaa ko wax waxin wér ngeen xam ni ki kenn la xoolal nga xool xool mbay samaan këlil xëttale moo fi daan bàjjo bi moo ñàkkoon ki ñaan amul moroom kenn la ba mu xee mbàkke kajoor daa romb jabb romb las jaari lum ni ñam fa te booba teewuru daarul manaan ak daarul minam am na lu teen ñëpp a ngi naan dootuñu naan daxi siyaan jaaraama seexaw balla jaaraama seexaw balla moo garlu njëkk ja teg sasin gas sanc ba moo di alsasin taarix a ngi bab dëgg la moo tax cunkuuli taj kaloom te njën mi génn fay ñaloor gaynde yoon te biir di boom mu dàq leen tey jatti la dale bii bi ba jaxoo jàpp ngu daangul di baxaw mu naa murit bu daan taxaw dem leen bu daa dewit na la la dale ndànku ba ndayoor jàpp ma ko cerno moo bar addi ak ku gor dër bu gor bu mokk kartus gone ab dënni doom la jox daan nuy defiim yoo xam ne fu mu di boom te booba taawin la gor lu cabbu ngel gor dunk jallu dullu ngel na gaañe wey ba lu bel ñuy gor ba tee ji jat ya ca des la toj koso ak lu dawal te koso teewul mu daa di fi toju gaañu du war ba koo kaabal la def daaru salaam waa jukka am salaam amidun joob na nga xam na sa baay sedd na la na ceer na gorlu pet ak dam du lool ba lépp set ba gaañee ko mu set tey lool yi lépp